jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di amaat mbégte jàkkaarloog yéen seen seen leader bi di people 221 di nuyu suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada yi di ñaan réew mi Sénégal yàlla na suñu borom dolli jàmm di ñaanaat réew mi di Sénégal jàmm euh, di ñaanal ñi nga xam ne caabi da leen féete ginnaaw yàlla suñu borom may leen indépendance ba ñu delluwaat seen kër di ñaanal ñi nga xamante ne yàlla borom da a jël njëkkee ko sama ndaay ak sama baay ak ñañ fekk taay nag ñu ngi invité koo xamante ni kenn du ko présenté ci réew mi waaye kenn du ko présenté ci réseaux sociaux yi mu di ku caa ku ne gis na fan yi coow li nga xamante ni amoon na ci diggante Mbaye caa ak ki nga xamante ni moo dox ci Pawlish ñu nemmeeku fa ay coow yoo xamante ni tamit kii di Sumbul ak Mbaye Kouthia amoon na fa mu jur ay polémique yu bari mbay dañ lay bàyyi nga nuyu ñu lay suivre. waaw di nuyu ñëpp di nuyu sénégalais yi di nuyu ñi ma bëgg ak ñi ñi ma bañ ñi nga xam ni ñoo may encouragé di di leen nuyu ñoom ñëpp waaw di gërëm tamit encore une fois sénégalais yi sénégalais gis naa seen seen seen taxawaay ñëpp ñi taxaw si internet di wax yëpp euh, tax fi fekk gis naa leen gis naa seen retour gis naa retour yi gis naa ñi ma ñi ma kii ñi may jàppale gis naa ñi nga xam ne ñoo may xas ñoom ñëpp gis naa xëy na ñi may xas du du kii xam naa dañoo teg ne dañoo dañoo xamul loolu moo waral génn bi tey. parce que damay jot ay kilifa yu mag ñu ne ma ma génn mais warul dama ne woon du ma génn di wax parce que weesu naa foofu. waaw euh. di nuyu ñëpp di nuyu ñëpp nag am na ñoo xamante ne sax woote nañ woo nañ di jooy am na ñoo xam ne def nañ vidéo envoyé ma di jooy mais buñ ko buñ buñ bu ñu def suñ defee lool dañ ma man mii sax dafa demoon ba ma perturbé wu comprendre nga. Euh, yeah di nuyu ñëpp. d'accord Mbaye euh, mën nañu xam lan moo sababoon sa dem kër Ablaye Diop Khass. <laughs> non loolu yéen xam ngeen ko yéen yéen yéen xam ngeen ko de journaliste yi sax laa gën a mere man mere wu ma sumbul de journaliste yi laa mere ñu dugal loolu laa gën a mere. non bala maa ñëw ci. Ah. dugal ba lan moo la fa yóbbu woon. li ma li ma fa yóbbu woon ah bu leen ko dagg de yéen ñii ñeen ñëpp journal man journaliste si boppam laa mere comprendre nga waaw parce que loo xamante ne daf may saraxe. mbay waru leen koo dugal. lan moo la yóbbuwoon kër Ablaye Diop xaas. waaw kër Ablaye Diop xaas damaa amoon nag règlement de compte ak moom. loo xamante ne ak Ablaye Diop xaas loo xamante ne dafa yàgg dañoo xuloo woon. ban xuloo waaw dañoo mer non dafa ñoo mer dafa dañoo ku nekk dafa téyewoon woon y' a 5 ans yoo xamante ne ku nekk xam nga ni man maa njëkk taxaw si télé tudd baatu Ablaye Diop xaas yëkkati ma ni ko xaas dinaa yëkkati sa drapeau ba di nga dem ba wër àdduna. man maa ko wax taxaw wax ko télé bi ma naan xaas a ngi ñëw yëkkati sama loxo kenn xamul woon xaas ñu damay pare ñu woo ma ne ma ka ki ngay tudd fan yi kan la man leen ab Ablaye Diop xaas di ngeen ko xam kan kan moo ma fekk si woon si mm-hmm. loolu. Mm-hmm. Ah? Mm-hmm. sama xuloo ak xaas ku si nekk danga nga a maandu. Mhm. ku si nekk da nga si waroon maandu. Mhm. noppi. Mhm. lan ngeen jotee. non xaw ma ko wet weranti eh, eh, eh, jiwoo ak kii yooyu yëpp comme ça loolu ma indi woon léegi bab si diaspora woo ma ne ma xaas su gisee sa benn émission daf may woo ne ma mais mbay moom góorgóor jàmbaar la góorgóorlu la chaque jour moo koy wax comprendre nga ma ne ok garaaw mu ne ma dama bëgg ngeen juboo yéen ñaar. chaque jour moo ko man ko wóorul man ko waa dugal ko ñu ñu jubóo garaawul àdduna amul solo Babs dugal ko ak Mati Mati mi nekk TFM Mati Mati nga xam ne nu mu ko ruus. Mhm. comprendre nga ak ñeneen ak ñeneen wax si mu dugg moom mu dugg si appel bi groupe bi Abdoulaye Diop joxaas si la ma ne yow xam dof dafa ngaa dof ko waa yow kaay fii waa yow ñu jubóo comprendre nga léegi man xool rek laay demee nit ku nekk nit nga tamit. nit ku nekk nit nga te xol laay demee man xolu xaw yoruma xolu kawsu yoruma xolu dinosaure yoruma xolu weñ yoruma xol dara xolu nit laa yor comprendre nga yërmande dama am yërmande damay jàpp di bàyyi man du ma mer man lu ma waay wax du ma mer du ma mer man garaawul lu ma waay tegoo ma tegoo ko comprendre nga man ni garaaw nañ dem bi may dem dama kan laa àndal man damaa am idaalee ma woo ne ma fooy jëm ma ne ko maa ngi dem kër Ablaye Diop xaas dañ ne ma juboo ak moom comprendre nga laa si jublu man dama ñëw kër Ablaye Diop xaas fekk fa presse bi comme comprendre nga pourquoi ñu ne ñu ne gis naa si live boo xamante ne ñu ne man maa woo journaliste yi ñu dem fa. kon daje boobu Ablaye Diop xaas moo ko sakku man man laa si man juboo dem juboo lu rafet rek laa fa doon def. man lu rafet rek laa doon def en plus que jëluma intention woon filmer parce que dañ am na ñoo foog ñoo xamante ne dañoo teg ne man dama demoon pour defi émission defi mu woon émission juboo ak Ablaye Diop xaas ñoo moo ma yóbbu woon. d'accord mais du question filmer. parce que retour yëpp bëri na affaire dafa jaxasoo retour yëpp gis naa ko même këcëb dafa teg ne woon communication këcëb bi dafa teg ne woon man maa dem di filmer deewu ma filmer ji. nga demoon pour jubóo xaas. dama demoon pour jubóo fekk fa presse bi. lan moo fa xam naa Ablaye jox ko parce que dani dani damay woowaale sax xa euh, euh, Pawlish gis na dégg naa tamit idaali ne man maa woo insisté pour Pawlish ñëw lan laa fay man ban rendement la ma amal ay jubóo xuloo Pawlish dama jox ma lekk jox naan <coughs> comment encore une fois ay wax su amee ku si mënul wax lu rafet na noppi comprendre nga. man yorum parce que parce que man yoruma lu ma joxe parce que yoruma dërëm bu ma joxe moo tax ku nekk ubbi gémmiñam di si wax. kon Pawlish dañ ko woon tamit pour ngeen juboo yéen ñëpp. waaw pour ñu juboo def ko avantage ñu juboo ñun ñëpp parce que dañ ne Pawlish Abdoulaye Diop Khass dañ ma Pawlish yéen ñaar yéen a mën a mayante xaalis ah leen lu nekk mën na si am. comme naan loolu moo indi woon loolu man affaire sumbul bi préparé wu ma ko foo woon. d'accord. indi wu ma affaire man fàtte woon naa sax affaire yooyu. affaire sumbul fàtte woon naa ko. sumbul jigéen la. comprendre nga bi mu ñu ñëwee bi mu ñëwee. vidéo bi ku mën a génneewaat def vidéo na génneewaat def vidéo man pare naa si. vidéo bi ku ma bàyyiwul ma fen journaliste yi teg nañ bi sumbul duggee ak magam xaw ma magam la kan moo attaqué ñoom ñoo ma njëkk a attaqué. mais bala ma ñëw man jug naa sax fëgg sama dana ne dunguru nga du wax ak yow comprendre nga parce que man bëgguma ku ma toroxal. mais sumbul loolu ngeen jotee. non Soumboulou si benn communication la doon waxee xëy na dafa xaaral parce que tamit euh, Soumboulou ni mu waxee jaaxal na ñu bari. Euh, mu mel ni sax dañuy mbay mook Soumboulou dañoo am réglement de compte. mu jaaxal ñu règlement euh, su nekkee dafa wax lu ko neex parce que loolu Ablaye Diop xaas la kon la. la la concerné la concerné concerné wu ma ko moom. Hmm. moom concerné wu ko de. Hmm. parce que dégg naa si communication mu ne. su ma bëggee du ma bàyyi euh, soo bëggee Ablaye Diop xaas mënoo maa respecté respecté Ablaye Diop xaas man Ablaye Diop xaas laa gën a respecté ko moom parce que moom moom laa moom Ablaye moom laa ko gën a respecté. comprendre nga dafa juum si communication parce que jigéen la comprendre xaw ma lan laa koy tontu xaw ma ma noppi. parce que mi ngi doon waxee xol. mi ngi doon waaj a tuur xéwal moo tax ma bàyyi ko mu dem. kii mais lan ngeen

d'accord lii la lii moo taxoon su su te Soumboulou war woon tontu sax si lii pour man xaas moo waroon a tontu parce que xu ñaar nit ñu xuloo dañuy xa dañu kii rek dañuy waxalante rek man guy gi yow mënuma mënuma mënuma euh, kii dañoo xuloo ma ak yow da ngay wax may wax loolu la rek. règlement de compte bi su wax naa ko si vidéo bi naa ne ko yow bi nga bi nga demee ba bi nga demee ba gisatoo ma kër Abdoulaye Xaas. wala gisatoo ñu ñu mel ne ni dangaa war war woon leen lan la wala bi ma defee communication am nga war ma woo ne ma bul waxati lii comment lii du rafet parce que sumu dama ko respecté dama ko respecté parce que maa moom dañoo yàgg comprendre nga dama ko parce que Kouthia daf dañ daan am man nit ki si loo ma defal lu baax su amee ay at duma ko fàtte xam mm-hmm. nga daan am problème ak Kouthia su mu danaan yëkkati téléphone am di woo Kouthia naan jàppaleen ma mbay loolu du ko fàtte loolu ñeewantal naa ko si yooyu noonu du ko fàtte kon respecté naa ko si respect yooyu. kon sa discours bi yow euh, Abdoulaye Abdoulaye nga doon visé. waaw man kiiw ma sax man sumbulu man du wax moom bu ma kiiw parce que dama ko. fàtte ne Mbaye sumbulu. waaw ah. sumbulu jabaru Abdoulaye Diop Khass la. waaw jabaram la mais man man sama sama moo ji maag Abdoulaye Diop xaas moo jiitu juddu comme li ñu koy waxee lu olof sama ànd ak Khass moo jiitu. comprendre nga bi ma fay ñëw sumbul nekk fa woon kon sama règlement de compte ak Ablaye Diop xaas ab ah, Ablaye Diop xaas moo ko war a régler. waaw mais ci biir wax ji tamit dégg nañ ci sumbulu mu ni yow mënoo euh, mënoo maa respecté te respecté woo sama baayu doom. mais lan moo euh, waa baayu doom comprendre nga baayu doom dañuy waroon a téléphone dafa ma waroon a woo ne ma dafa ma waroon a woo ma respecté baay euh, kii xaas parce que fi mu nekk nii. xam nga mais bi ko xaas takkee ba tey maak subul tu communiqué wuñu deew ma fa gisuma gisuma kon xam naa ne wax waxu xandak nax sa xandak rek la doon wax. est-ce que jàppoo ni wax ci tamit daf ko metti parce que mu ngi naan su ma la gisoon bien avant maa koy fajal sama bopp. non non su su da doon wax noonu rek pour affaire yi tàq noonu caméra yeeg yooyu mais xam naa du ko a du ko mën a man ku si nekk xam na ma man faale ma kenn respecté wu ma kenn sama papa ak sama yaay laa respecté man ñëpp xam na Sénégal yëpp xam na respecté ma mbindeef joxuñ ma fu lekk joxuñ ma naan ah lekkuma seen barke lekkuma seen ñàkk lekkuma seen lekkuma fii ku fi taxaw koo xamante ne damay lekk seen ñàkk na taxaw wax lekkuma ñàkku kenn lu ma neex laay wax su ma xoolal lu ma neex laay wax lu ma neex laay def su ma jugoon tontu ko respecté wu parce que loolu loolu andiwu ma fa woon moo tax tontuwuma ko fa ñu bëri nañ naan lu tax arrêté woo ko parce que mi ngi doon jooy xam naa xolam dama doon wax mu li nekk si xolam comprendre nga xëy na moom moo waroon am ne leen bu leen ko dugal ak yooyu yooyu comprendre nga waaw. mais sénégalais nee nañ Soumboulou daf laa toroxal. waaw ma boppam la toroxal toroxalu ma de boppam la toroxal man toroxalu ma de wax dëgg yàlla toroxalu ma man gisuma sax ci torox parce que xolam la doon waxee parce que vidéo bi moo ko ñoroon. vidéo bi la doon xëy na retour yi mu yi mu jot ci vidéo euh, euh, kii bi da ko kii. pour man moom eh, eh, niveau fi mu toll ak euh, capacité am fi mu toll ak fi mu jaar yëpp waruma woon der sax dafa waroon xëcc dafa ma waroon xëcc si biir néeg ne ma waroo wax lii waroo def lii seetal fii seetal si man seetal si lii loolu la waroon a wax. ndax biñ leen yaa ngi doon gis nañ leen mais pour man pour man kenn du ko gis am na loolu nag la la mere lan moo. yow yaa ngi doon <laughs> mais pour man amu leen kii pour dugal ko yéen laa mere. yéen parce que taal leen seen caméra yi téléphone ngeen ko doon jëlee pour man pour man sax ampleur bi du egg fii. ñu gis ni bi mu amee euh, yow ban retour nga ci am parce que sénégalais yu bari tamit xam nga euh, xaw na leen a metti ñëpp jàpp ni comme li kii wax Soumboulou dala toroxal euh, après naka nga jàngatee loolu. waaw dama encaissé encaissé naa ba doyal rek parce que pour man affaire du du toll fii quoi du man moom ja ja dañoo teg ne man maa koy doon filmer sam bopp ma dugal ko ki ko jàpp. du loolu dañoo jàkkaar man maa ko doon filmer sama bopp moo tax ñu ne lu ku la toroxalati bu ko dugal te loolu filmer wu ma ko yéen ko filmer mais biñ koy filmer gis nga ko. mais su ma gisee pour man du ngeen ko dugal. tey ah! sa téléphone di ko dugal. non ah mais damaa tëj de woon yéen loolu indi wu leen fa maag Pawlish moo leen fa indi ak xaas. loolu xanaa kay da see rek. d'accord comprendre gis naa tamit le vial bëgguma sax tudd turam ah mu naan. moom bi sumbul di wax loolu mi ngi toog Pawlish war waru woon sax tudd lox euh, tudd turam di ko may promotion comprendre nga. pourquoi lu tax muy muy muy muy fen. d'accord moom bi fi sumbul nekkee wax loolu moom fekk ko fa ah. d'accord <coughs> man damaa yëkkati sama damaa yëkkati sama téléphone di woo ko naan yow eh, xaw ma maa ngi kër Abdoulaye Diop Khass loolu du am amul. kon Mbaye fi mu toll nii yow ak leen nii. parce la mën a fen. kon kon dafa mën a fen li doon def noonu mën na non non dafa mën a fen non du scénario de dañu doon jiwoo mais après dafa indi affaire réew naan mbay maa maa ko gën fii kenn gënu fi yàlla rek gën comprendre nga fii kenn gënu fi na encore une fois ma ma ma yedd ko foofu nay nay bàyyi nit ñi naan ay maa leen gën ñi ay kii lañ di tuutal nit nit kenn ko tuutal comprendre nga ba pare en plus que na bàyyi fen yi muy fen di wër si plateau yi naan ay bi Ola Diop xaas di kii maa fa nekkoon sumul lii la ko wax ak yow yooyu yëpp jarut a wax comprendre encore une fois na na bàyyi na xoolaat ku ko jëlati nay kii parce que loolu fekk ko fa. Euh, fi nga ñëw di fan la. fii léegi série la fii laa defee interview bi tey waaw lu waaye si affaire meuble lal ah armoire mbàjj darab. ah lépp lay jaay daal waaw lépp lay jaay fii moom fii moom bëgg naa fi di ñëw di jënd su may jëndal sama kii rek man damay jënd yii di maye waaw ah, man damay jënd yii man dawul ma oto bu seer sol ma yër bu seer man lu ma am kii laa koy jox néew doole laa koy jox waaw. d'accord mu ngi noonu ah. ñu amoon mbégte jàkkaarloo yéen. amaat daje di leen jox yeneen dig daje ci suñu émission fii ci People 221 ah. jërë ngeen jëf.